groupe des médias mbetteel gu rëy la yëgee kàddu yi nga xam ne jëwrin ji ñu dënk wàllu communication yëkkati na ko sëñ bi Sall di xamle ne ci li ñuy wooyee dette fiscale des médias dong gàddu na ci lu toll ci pour cent ba tax kër gi di laaj ban yoon la mën a jaar ci borop 40 milliards ku ci yor dong ñaari milliards mën a gàddoo lim bu toll ci 11 pour cent mu mel ni jëwrin ji yorul xibaar bu baax bi ndax groupe des médias yóbbu na ci yoon liggéeykat yi yor wàllu fisc ndaxte ñoom ñee ci diggante 2022 ba fii ñuy waxee ni jëlee ne ci ay compte des médias lu toll ci 158 ñuy jiiñ tey groupe des média mu ngi tukkee ci exercice 2017 jàpp 2020 ci wàllu TVA donc nguur gi di toppee seen TV lu romb 900 millions loolu di tekki ne ñoom ñi dañoo bëgg a wax kërub liggéeyukaay gi ay am-amam maanaam chiffre d'affaires toll na ci juróomi milliards te xam xel ne lu ni mel mënu la nekk moo ne ci boobu tàng ñuy toppee yooye koppar des médias ay ndaw fis amul benn yoon rek bu mu toppee groupe bii di des média ci ñàkk def ay versement yu prélèvement impôt ci salaire way liggéeykat bu ñu àddoon ak ci li ñuy dëppee aide à lu mënti ab donte néew la des médias lu toll ci 52 millions dong la jot ci atum 2020 ci ba mu duggee ci ay comptam rek la ci fisc dal di tegaat loxoom ndax fekk nañu bloqué ay comptam ci atum ci ñetti groupe yu mag yi dee yor mennub millions la jot ci wàllu aide à la presse boo defee xayma ci payoor yu jege 100 millions mu mel ni nguur gi téeméer dong la jàppalee groupe ci ni muy fayee ay liggéeykatam xibaar yu wérul yi jëwrin ji di joxe dee média fasul koo yéenee bàyyi benn yoon mu jàll moo tax muy xamle ni mbooleem liggéeykat yu groupe ay contractuel lañ maanaam taskatu xibaar ak beneen bu munti doon seeni payoor mu ngi càmmanteek li ñuy convention collective maanaam tegu ci yoon ci bépp kuréel goo xam ne rek mu ngi saytu mbër mi ni li koy dëggal mooy ay weer ci ginnaaw rek kër gi jotoon na ab seet si gu bette tukkee ci ay inspecteur du travail te boobu ba tey amul benn gàkk-gàkk gu ñu teg ci wàllu woowu ci kaw kër gi ci wàllu redevance yi ñuy wax ci TDS Sen TV moom bokk ci benn yoon ndax ba fii ñuy wax ak yéen amul lenn lu ñu yoreel boobee këru liggéeykaay ba tax ab laaj samp ana fan rek lañu war a sukkandiku ba xibtalee nii kër gi moo ne nag kuy digle cangaay na fekk nga set ndax ci ay xibaarkat ñëpp xam nañ ni ci atum 2023 nguuru Sénégal mu ngi yoreel lu tolloog ci 45 milliards kër gu mel ni IPRES yoreel ko jàngalekat yi boo ci yokkee la mu war a jox waa caisse de sécurité sociale boru nguur gi day jege 90 millions moo ne loolu taxul ñuy wooyee nguur gi ab état délinquant wala woyu te tur woowee lañ bëgg a teg ci ndoddu des médias lii di firnde rek ne ab singili am na ci kaw des médias moo ne jëwriñ ji ak ñi muy liggéeya ndooral ñoo gën a xam ne kërub liggéeykaay gi bokkul benn yoon ci ab entreprise de presse yi xam ne tegu wuñ yoon ndax ci wàll woo mënti jël ci ab kër war a doxee ci yoonu Sénégal ci sartu réew mi ci wàllu njub lu ne mel tax na nag ba sëñ bi Sall moom jëwrin ji war a bañ a nangoo def liggéey boo xam ne lépp lu ci gàtt ci am dong lay delluwaat Non à la manipulation contre des médias. Le groupe des médias est ahuri devant les déclarations mensongères du ministre de la Communication. Monsieur Sall a toute honte eu affirmé que des médias portent à lui seul de la dette fiscale. Depuis quand 2 milliards représente de montant de la dette fiscale Pour votre gouverne, nous avons contesté devant les tribunaux la dette fiscale, d'autant que le fisc a arraché entre et maintenant la somme de millions de d'une taxation d'office sur les exercices L'acharnement est réel, rien que sur la TVA. Le fisc réclame à la Sen TV plus de millions de francs CFA. Autrement dit, le chiffre d'affaires de la télé avoisine les 5 milliards de francs CFA. De qui vous moquez-vous Pourtant, en aucun moment, le fisc n'a indexé les entités du groupe des pour non-reversement de prélèvements d'impôts sur les salaires du personnel. S'agissant de l'aide à la presse, elle est vraiment en 2022 que le fisc a directement confisqué parce que nos comptes étaient bloqués. En 2023, la subvention était de 40 millions pour les trois entités du groupe. Faites le calcul, avec une marge salariale de plus de 100 millions de francs CFA pour plus de 500 collaborateurs, l'État aura donc contribué à concurrence de francs CFA pour chaque collaborateur de des médias. Monsieur Sall, la sale besogne ne passera pas par des médias. Tout le personnel du groupe des médias des journalistes et professionnels de l'information est respectée chez nous, avec en sus une situation en règle au niveau de toutes les institutions sociales du Sénégal. Chaque salarié a la latitude de vérifier sa situation personnelle auprès de ces institutions sociales. Il y a deux mois, nous avons reçu la visite inopinée de l'inspection du travail et jusqu'ici, aucune infraction ne nous a été notifiée. À propos des redevances de TDS, Sen TV ne

raison garder. Monsieur le ministre, vous ne dites pas la vérité et vos collaborateurs savent que vous ne dites pas la vérité. Des médias est une exception. C'est malhonnête de classer notre groupe dans le lot des entreprises de presse qui ne sont pas en règle. La presse a intérêt à être sur ses gardes face à un ministre élève de son maître certifié et qui, sans la politique, n'aurait jamais eu le courage de croiser du regard un journaliste sénégalais. Monsieur le ministre, performance d'honnêtes citoyens pour offrir une barbe à papa à votre mentor est une entreprise ville signée par la direction du groupe des médias. del déglu del xool Feeling Dakar site am info yu leer people